kuy sëy sa jabar mm-hmm. mu mel na xare mm-hmm. may leente jàmm ngeen tàggoo kenn ko dem sa kër mm-hmm. ndax sëy du xare sëy jàmm yàlla koo mënta nekk ci jàmm bàyyi mu dem kër ndeyam bàyyi mu ñu jeexale ko ak euh, coupe du monde bi Sénégal qualifié na Aliou Cissé tànnoon na vingt six joueurs euh, bokk ci waaye blessure bi biñ ba ci biir dañu insister insister ñu xam ne kii mënatul bokk mu génnee ko am na sax keneen ku moo ko tudd Moussa Euh, démb koo xamante ne dafa ñëw pour euh, bokk ci effectif bi blessure Sadio Mané bi jaaxal nañ ñëpp hmm? waaye itam démb gis nañ ne Benzema meilleur joueur du monde ballon d'or c'est-à-dire ñaari ballon d'or yi ñoom ñëpp dañu bokk ci coupe du monde mu nekk lu yéeme loolu tam cat mën na cee mën na cee am dara lu mu ci def. xam nga bu dee Sadio Mané. Hmm. man. Hmm. personnellement sama xam-xam bopp. da am mbir yoo xam ne. mën naa bañ a mbiru cat. dañuy xam nga ñun am nañ xam-xam. xam-xam. Afrique am nañ xam-xam. waaye nañ xam tubaab yi am xam-xam. Mm-hmm. tubaab mm-hmm. am na ci réew yoo xam ne xam-xam ya ñuy def. Mm-hmm. xam kuñ kuñ ci dóor. benn kër bu jàpp tax xam naa man réew yooyu te dama fay dem. xanaa mooy féticheur xam naa réew yoo xam ne. xanaa xam ne Équateur. réew yi ëpp xam-xam. ci adduna bi moom ci la bokk. Équateur. waaw. parce que Guinée Équateur la. Équateur. réew yi ëpp xam-xam. ci adduna bi ci boppam. moom équipe boobu. Mhm. dëkk boobu. Mhm. fa la boobu. Mhm. dëkk boobu ñoom ci boobu. xate naa ba foofu lépp ci gëstu xam-xam. mais li ko jàpp. mën naa sa cat Sadio Mané man jàpp naa ne cat bi ko jàpp naa li mu nekk baax ak sarax mi def. ak li mu def bambali. ak dëkk ba yëpp. gëm naa ne. yàlla mën na ko dimbali. mais am na xeetu xam-xam yoo xam ne. bu ñu la ko defee taal ay bougie teg la comme esthète nii. jël ab jaas dagg benn tànk bi amuñ def. Mhm. loolu kooku ko def faaw mu dal. jamono mhm. yoo xam kenn ko tudd. Mhm. ci mais gis nga saa yi man xam mën naa koy def. mais ci kàttanu yàlla na ñëpp ñaanal Sénégal ñu gañe mais yàlla moo dogal. lu ko neex mu def. ndax am na toog ñu bàyyi mbir yàlla. mais ñëpp amoon a yéene bu dem. ndax xale bu jàmbaar la. xale bu kii la mais nañ ñun nañ jàpp ne. Sénégal am nañu borom xam-xam ñu ngi ñaan. mais équipe yi tamit. seeni sëriñ ñi ngi ñaan. Mm-hmm. te ba xam-xam. Mm-hmm. tey sëñ Baara bu ne woon bu ma ministre boo woon tey na ma. Mm-hmm. sëñ Baara léegi tey Sénégal dafa bëri Ecuador. boo jàpp nit. pour bañ a dugal koo jàpp doo jàpp ka gën a ka gën a aaj. waaw su football la. boobu Ecuador bu nooy dee Sénégal. duñ ne ka gën a aaj Sénégal ñu ko jàpp. ñu jàpp Sadio xam nga dëgg laa wax dëgg la wax dëgg la wax. wala kasa la. maanaam jàpp nga ne daal ñun li ñuy def ci ay ñaan pour suñu équipe ñoom tam ñu ngi koy def ay ñaan pour seen équipe. lu lu lu ko raw ñoom ñu ngi koy def seen équipe ñoom. Mhm. lu ko raw. ni mhm. ngi koy def seen équipe mën a wax. nga xamante ne moom tamit euh, macha allah jox nañu coupe d' Afrique. jàmbaar la. Mhm. nit ku jàmbaar la. nit ku jàmbaar lool lool lool ndax am na ci benn magam boo xam ne xaw ma ab sama la sama xarit la. mu nekk Paris. ndeysaan ku baax. mais li ma xam mooy mooy. moom ci boppam na gëm gëm gën a gëm mystique. Mhm. nga xam mystique ci bari foo xam ne ñu ko faa gale. loolu laa ko ñaan. Mhm. ba ci ministre des sports. Mhm. bu Thiès ak euh, comment dirais je l'autre là. Ablaye Sow Ablaye Sow. gëm ne. mystique tamit bokk na ci affaire buñ ko gëmul. def ci mystique ndaw na ah naagam naagam. affaire gëm-gëm la naagam déedéet am na. mais am na fu mu yàggal nit. ay xoo am na sëñ xoo am na. wallaay am na. nawetaan ne boo fa demee da ngay jommi wax ma équipe nationale. ma ne. Mhm. am na loo xam nit bu ko defee ci biteel laa la wax. Mhm. ba def ci guddogo weex. Mhm. ba def ci tiim. ba def ci benn banaana. def li may def ci banaana bi. teg ko ci kaa yi nii teg. parce que gis naa ci laa ilaaha illa xabal du dugg ci kaa yooyu. am nañ gën a gëm loolu. mais même mu def sax nañu def ay sarax. ay sarax. bu dee équipe bi ñu xool mu équipe bi comme bu dee Sénégal day dajeek jël turu Qatar. Mm-hmm. keef la tala. Mm-hmm. alif mm-hmm. ak ra. keef gi vela. dagg taxaw bi alif bi taxaw un ra taxaw deux cent nga àddal ko wàccee ko jënd ko ay guro yu weex. xam nga yomb la motul sax li ma wax nii motul sax cinquante mille. motul ko ci cin. toggee ko tiir bu xonq. dañuy mel ne mën nañoo doon dix. ci seen kaw ñoom. ay xoola yooyu am na. yooyu nañ koy def gën a def ñaan. Mm-hmm. dama ne xam nga information am na ñoo mm-hmm. mm-hmm. ko sax. koo xamante na nga ko defal si waa Sénégal. di ñaan di di sarxe di ñaan yàlla. te bàyyi ko neexee Sénégal jël ko bi bu ko mooy xool li ko soob mu def ko ci def ko nañ ñaan yàlla daal Sénégal yàlla may leen ndam te mu gën ci yéen te mu gën ci ñoom gën ñun mu nekk seen ndam lu set guy. dañuy ñaan kàttu yàlla Serigne Bara Niane def gis